léegi police tey da ngay seetlu Alioune xoolal problème moto yi ak policiers Quel est le problème? réglé te war nañ ci wax la police doit communiquer sur ça Moi, la direction de la communication de la police war na génn mu ne moto buy daw ci réew mi tel centimètre cube ba tel centimètre cube yi keuyit nga wara am ñu Nous ñu tas ko ci réseaux sociaux yi sunu paree may nit ñi six mois ñu wut kayit yooyu parce que am na agression yoo xam ni moto yi ñoo koy def am na ci. am na ci léegi nag ñoom ñu dem wuti ci kayit yi ku ci amul kayit buñ ko fayloo de nañu nangu moto bi ku ci amul kayit bul ne ko kay fay déedéet nangul moto bi ne ko léegi dama jëndi beneen moto. wala nga nangu moto bi ne ma ne ko demal ba am say papier yu complet boo ñëwee nag nga nga soog a jël moto bi soog a fay état bi maanaam fay fay pénc mi waaw ah. loolu muy problème mu moto yi <coughs> boobu jàll loolu war nañ ci communiquer parce que loolu tam frustration la waaw frustration leeragul police war na ci communiqué leeral dimbali it agent yiy liggéey. parce que confrontation bi am diggante police ak citoyen yi baaxul baaxul ci réew baaxul de wóorul ci réew te it doo nekk ci kaw yow ngay noos di lek xaalis bu bari agent yi nek sur le terrain du am dara pour lan affaire bi ñepp wara a gis sen bop donc frustration yi yu bari tay moko indi nak suñ jógee ci moto yi ñu dem ci auto yi CMC yi ñu réglé ko dans les am sa papier yu mat par exemple vitres c'est des vitres teintées c'est des vitres fumées man min na naa ba ak samay soxna ak dañuy dawal ñu le vitres la sont non vitres original la la mel dafa fumé policier pour leur nang au lieu mu yóbbu sa catégorie, sa permis ak sa carte grise lay boole yóbbu yow nga taxaw di xoole frustration la te fekk foofu police war nañu wax est-ce que catégorie bi la war a téye walla permis bi kese walla ñaar yëpp police war na ci communiquer parce que man je donne des solutions pour diam am oto bi bu dee défaut de papier Autre, bee ko am mais kayitu oto bi nga war a téye mais boo téye permis jàmbur téye carte grise am téye assurance ba pare nag dem sa yoon loolu du indi jàmm bindal ko mu dem lii tam ñi ngi ñaan police mu communiquer ci ñun dañuy ñaan pour ndax tey police tey bu ñu dimbalee ci lii dina gis ne wallaay tension bu bari dina wàññeeku Aliou li ngay gis ni yëpp di ko kaas frustration moo koy indi ndax te yow mënoon nekk di liggéey suba ba ngoon daw loo yóbbu sa njaboot nit di def lu ko neex wala di la foye dafay metti ci xol mën na indi lu nekk dégg na sax ki ko kii ñu ne soxna si nga tudd léegi te ngeen bokk kinne fat kinne ñi ngi jàlle mbokkam mi di leen massawu metti na trop ah. am na ñu ne ki mu doon liggéeyal moo ko rey mm-hmm. ndax problème mu xaalis ndax lan yaa war a verser xaalis yi verser woo ko mu faat ko nii donte nag yonent bi nee na ku ñu rey àjjana nga jëm surtout que mi ngi ci jihaat ndaw si ndax liggéey jihaat la kon loolu dina wàññi métit mais ba tey métit la mais léegi ki rey nuñ ko war a def ki rey dañ ko war a rey kenn ëppul yërmande yàlla kenn ëppul yërmande yonent bi yàlla ne na ki rey boo leen ko reyee ci pénc mi nee na rey ga dakk ndax keneen ku nar a rey dina ne ah man kat bu ma reyee ñu rey ma rey bi ñu ñu ko peine de mort kenn du ko dindi ci réew ay droits de l'homme yi waxuma ko li may xuloo ñoom xam nga lan la tey ji soxna Fatou Kiné mi mii ñu rey amul droit soo waxee ñu ne la dee na ba pare loolu droit de l'homme moom sérieux wuñu yow da ngay defaan ki rey mais ki ci dee nag ak njabootam ak ñi mu bàyyi